auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokk jullit yi yéen mbokku yi man seen soppe seen xarit seen mbokkum taalibe moo dellu si di nuyoo di jiital ci nuyoo bi nag xalifa général des mourides seen Muntaxa Mbàkke ñu koy ñaanal yéeneem ak bëgg yu yoon wi bëgg sëriñ tubaa yéene Serigne Touba liggéey Serigne Touba yal na yàlla defal ko lu kawe njortam mu naal naalaat di ziar itam di nuyoo xalifa général de Mourides des Baye Fall sëñ Cheikh Jëmb yal na yàlla yokk fanam moom it li mu yéene liggéeyal maamam Cheikh Ibrahima Fall yal na yàlla defal ko lu kawe njortam di ñëw ci sama yoon ci kër Cheikh Ibrahima Fall sama buntu ci kër Cheikh Ibrahima Fall di sëñ Fallou Fall mu sëñ Modou Aminta di ko ñaanal moom itam mu am gudd fan ak wér te di ko ziar di ziar mboolem kër buntu kër Baye Fall yëpp yal na yàlla defal leen jàmm ci barke Serigne Touba barke Cheikh Ibra Fall barke Sëñ Fall barke Sëñ Fall barke Cheikh Ibra ma ñëwaat nag man Daba Macky di wax may tontuwaat suñu waaj yi nga xam ne amul fenn fu mu jëm daa mel ni callweer topp ci àdduna bi Sénégal di wër rek mel ni ku gëlëm yow Idrissa ci yow laay dellu si man Daba Macky yow laay interpellé di la waxal ne Idi yoon ne maa ngi dégg nga naan président Macky Sall dafa amul fulla Idrissa yow moom yaa ñàkk fayda Idrissa yow moom yaa amul fulla Idrissa yow moom yaa amul personnalité Idrissa yow moom amul maanaa Idrissa yow moom yaa deltu ginnaaw Idrissa yow moom yow yaa dul dara sa yow moom nga xam ne gëmoo sa bopp réew mi di la gëm Idrissa dama bëgg nga xoolaat sa bopp dugg sa ruq manakan Idi dugg sa ruq boo duggee sa ruq manakan dina sa dina la wax yow kan nga Idi yow yaay kan Idrissa yi nga wax na Macky Sall na leeral yow Idrissa dangaa leerul bay leeral kenn wala ngay leerul kenn Idrissa yow mi nga xam ne trahir rek rek rek rek rek mooy sa àdduna ci lool ngay dox ci lool ngay dund yow Idrissa Idrissa bañ nga ko président sa président bi fi jógee muy sa baay Ablaye Wade suñu maam Ablaye Wade nee na sa kont ak moom yéen a koy lijjanti ci kanamu yàlla suñu borom Idrissa yow da nga war a indil askanu Sénégal leeral ci ñun ci suñu waa askan wi ñun da ngaa war a leeral lu bëree bëree bëree bëri ci milliards yi nga xam ne Ablaye wadd dala koo joxoon nga détourné ko dem ba bitim réew di fanaan ci hôtel boo xam ne hôtel bi yaa ngi ciy fay juróomi million par jour. Idi xaalis boobu liggéeyoo ko boo ko liggéeyoon doo ko def ah yow gëmoo sa bopp ba nit ñi di la gëm Idrissa yow yaa nekk waaye yaa war a nekk quatrième président sa ñàkk fulla ak sa ñàkk maana ak ñàkk a gëm sa bopp moo tax nga nekk ndaare yow yaa ngi ci ginnaaw Idi ba nga jógee Macky jógul kon bu ñàkk fulla di am yow moom yaa ñàkk fulla président Macky Sall wane fulla wane yar wane dignité wane par personnalité wane gëm réewam dégg nga wane gëm askanam waat toog nga naan ko amul ful ku ñàkk fayda ni yow lay mel yow Idrissa yow moom yaa amul ful nga dem dellu loolu di loolu di wasin di bañ dem dellu nga moo ko waxee dem dellu rek sama morooma jigéen ñi xam nañ ko booy booy accouché boo bëggee sa sa bébé bu génnee da ngaa da nga bëgg rek mu juddu benn yoon mais bëggoo mu retourné yow nag yaa raw bébé boobu nga xam ne day dugg di génn li nga xam ne kenn bëgg ko boo gëmoon sa bopp kon de yaakaar naa ci yàlla yow yaay mën a nekk quatre quatrième président la nga doon wax parce que loolu nga gëmoon waaye sa ñàkk maanaam personnalité moo tax noo ko suñu dëkk bii nag nga ñëw fii kenn kenn mënu laa tàgg idi ba doo tawte te man de Daba Macky mii mayu ma la dor loo wàq rek man dinaa ko suuf ndax dangaa neexut a défendre dangaa neexut a waxal neexoo dimbale ndax ku tooñ wàlliyu boo ko gisul te xamoo ko nañ ne jàkk xool Idrissa Seck Idrissa Seck nee nga lan dégg naa nga ne fii ak ñetti at inondation dootul am Touba yow inondation bi ngay wax fekk nga ci président Macky Sall la yéen bi ngeen nekkee ci réew mi nekk nekk nekk nga nekk nekk nga premier ministre lu ne nekk nga ko ci sa gouvernement bàyyi Ablaye wat lu tax xalaatu woon dëkk bi pour inondation parce que yéen defalu leen dara yàlla lépp lu ngeen def ngistal la inondation bi assainissement Touba jooy nañ ko bu yàgg waaye yéen da ngeen a lànk def leen sa bàyyi Ablaye Wade nee na du suul alalam ci suuf ndax moom day politique lu mu def da kay teg mu ne fàng ki nga xam na nag day liggéeyal yàlla liggéey Serigne tubaa ba sëñ Sidi Maxtaar nekk sa kii sa tudde naa ko baati jàmm sëñ Muntaxa Mbàkke ne ko demal bul tiit bul ragal li ngay liggéey ci Touba ci dëkk bu ko kenn gisu tam sëñ tubaa gis na ko te sëñ Touba kenn mënu koo nax Idrissa Macky Sall nag gàcce ngaa laama sàll ngaari lamtoor buuru gede maa moo ma neex ma neexee tagg ko damaa xamul juróom-ñaari maam yaay moo ko xam ne ko ndax jikkooma tax ma di ko tagg jëmm jooju mboolem fu kër kilifa diine nekk président Macky Sall am na fa wàccuwaay ci lan ci yaram ci tegginam ci personnalité nga xam ne moom jëlu micro yi rek di ko soccoo mën naa ne Macky Sall li ko gën a yi li ko gën a jox réew mooy yar yow nag fii ci tuubaa juróom-ñaar fukki mbàkke mbàkke jóge fii ci Touba ñoo fekk la Thiès nga toroxal leen ndax lan parce que dañ leen a xeeb ndax loo amul rek yow idi xeebala ko teg ña ñooñ duñ dara ñooñu tey ñoom ñooy dara idi ñëw nga fii ci digg Touba Mbacké naan Karim wàdd ak waa dëkk bi am na ci ñoo xam ne du ma leen tudd nag ci yu mel yoo xam ne du ma leen ci tudd damay junj rek ne complot la ba nga bëggee wax kàddu googu am na ñu la ko tere ci ay kilifa yu nekk fii ci dëkk bi nga ne mbindeef mbindeef mënuma koo te wax mbindeef mënuma te wax kàddu googu mbindeef boobu dañ koo dagg génnee te lépp ci Touba gi nga ko waxee waxaat ne bés ma nekkee président de la benn mbàkke mbàkke mbàkke bu ndaw dootul am passeport diplomate fi nga ko waxee Tiwaawoon Touba ñoo bokk maam maaram benn maam ñoo ko bokk saytaane xeju ci te jaxase du ci xej junj nag doy na boroom xel li ci des lu bari dama la koy dencal wax ko jotagul bés bu jotee Idrissa di nga xam ne lépp dëgg la Idrissa fii ci Touba weddiwu ma la de ndax nit ki nag moom sëriñ Touba moom def ne woon ku jóge ca biti ñëw ci këram dëkkam bi rek ganam nga gan ganale waaye ci jikko ji ah ci yar ji koo xam ne nee na dafa gëm fii gëmoo kenn kenn nga gëmul seen murit bi président Ablaye Wade suñu maam nee ngeen murit la bañalu ma ko ko de te néew ma du murit tam néew ma tam def fi dara de mais damaa bëgg lan la fi ab Ablaye Wade def lu weesu forage yi ngeen di wax te teewul forage yi mu ngi continuer ndoxal ngi continuer di ñàkk ndox moom di continuer di ñàkk teewul sama président de la république président Macky Sall mooy ànd ak forage di leen gunge di gunge forage di accompagner forage te bu dee woon accompagnement boobu président Macky Sall di accompagner forage yi di pousse forage di jàppale forage ci mbirum ndox kon Touba Mbacké dina gën a sonn ci mbirum ndox màggalu Touba yéen benn réalisation ngeen fi def mane ne sama président Macky Sall def na fi centre collecte bi nekk ci kàddu baloo ji def na fi màggal ga projet bi gën a rëy ci projet yi mooy Ila Touba Ila Touba boobu suñu waa ji naan euh, fii ak ñetti at ñun président Macky Sall dafa toog rek yow toog nga naan fii ak ñetti président Macky Sall dafa teg tànkam rek projet la njëkk a def fii ci département parce que loolu la vigé woon te mayu leen ko woon fu ngeen fu mu ko defee dégg nga Ila ñëw na kenn du ko fàtte kenn mëntu koo fàtte xool leen jam ñaaju xool leen lim immigré Kaolack Foundiougne Matam Linguère Kàdd Balooji Ndindi ah Casamance ah mais kon moo naan président liggéeyu ah alhamdulilah Ablaye Wade de ligg euh, suñ biñu jëtee biñu jëtee buñu jëtee buñu njëkkee am indépendance Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade président Macky Sall bu fekkoon ne day gone gu ndaw gii di président Macky Sall li mu def li mu def lan la def ab Abdoulaye Wade Senghor Macky ñoom lan lañ def damaa leen sama président bi li mu fi def kenn kenn kenn kenn mosu ko fee def te bu fekkoon ne ñun ñëpp liñ fi def. def nañ fi li Macky Sall def kon passé nañ fi néew ma nag defuñu ndax ku toog am lu mu def néew lu ko kës bëri waaye nag sama waa ji li mu fi def kenn defu ko fi muy président mag li mu fi def fii kenn defu ko fi benn si jàmm président Macky Sall jàmm lay woote président Macky bourse familiale xoolal maanaam làmp yi nga xam ne dafa war a dem ci dëkku àll yi tëli yi ah, euh, bourse familiale opération gratuit yi zéro ba cinq ans yi màggalu Touba Ablaye daf ne woon feet lay doon waaye waaye validé wu ko de yokk dëkk bii nga xam ne papier ah, moom lañ ko joxoon mu denc ko validé wu ko de Macky sàll moo validé màggalu Touba di feet parce que fekkoon li muy woote dëgg la ci moom ba mu toogee rek bañ ne ŋaang ne màggalu Touba ba mu xëyee rek da ko war a validé mais validé wu ko yokk jumaa Touba gii. ne dañoo bëggoon a yokkaat Touba comme ni ma ko mën a waxee saytoo ko pour ngeen mën a comprendre bu baax a baax fi may waxee ah Macky Sall Abdoulaye Wade dañ koo jox papier mu leen ko denc validé wu ko Macky Sall moo ko validé kon lu ne fànn kenn du ko kenn du ko jeex yow Idrissa yow da nga toogoon assemblée national koo gën a bañ ci àdduna moo yoonu murid bi wax ma lu tax yow Touba nga gënoon bañ ci sa àdduna ndax dangaa xam ne nag Touba sans Touba kenn du dem affaire bi fii la. mais li ngay fii nga daw ñëw gëmoo ko gëmoo ko sa bopp nga gëm dangay nax sa bopp comme na nga doon def sa diggante ak Ablaye Wade di naxante kenn ci yaan gëmu seen gëmu sa morom yéen ñaar loolu loolu moo la dal gëmoo fii waaye nag sëñ Tuubaa kenn mënu koo nax boo jógee ne dangay nax dëkk bi wala dangay nax sa bopp sa bopp ngay nax waaye naxoo kenn mënoo ñoo nax mënoo nax kenn sa bopp rek nga mën a nax te Olof Njaay neen liy tooy ci yow moom lay jóge du jóge fii man nag damaa bëgg nga xam ne président Macky Sall du sa morom te du sa màppandoo yéen nag nii ma limee nii te yéen nee ngeen Ablaye Wade murit la murit la murit la léegi da ngeen di ñëw li ma fi lim lépp lépp limal leen ma ko li mu fi def ci dëkk bi limal leen ma ko fii de ci dëkk bi lim mën bu ma doon wër ba jant bi so te am na lu ma fi wone moo waa jeunesse en marche jël ñoom it continuer te xaajaluñu dégg te ñeneen bu jëlee di continuer xaajaluñu kon nag na ngeen fexe sama waajalam waxoon ba yàlla fay wax ju bari bàyyi jëf nga wax ju bari yóbbuwul kenn fen sama président nag moom day def lu baree baree baree bare boolewul daraa ki wax léegi xaw ma dañu doon marche xaw ma lu ñu doon doon def gëm leen yàlla gëm yonent bi gëm seen bopp te noppalu ndax li ngeen di marche amul bopp amul geen xale yi sax dañ leen a jéppi askan wi jéppi leen changé leen comportement yéen lu ngeen fi defarul woon wees na faat na lu ngeen fi fondement rek Macky Sall la koy yeggal mais du du ngeen ko mësalee te yeggal Idrissa na ma bëgg nga dimbali ñu dimbalil waa Touba man nag daba Macky man sama bopp laa wax man de du ma la may dara te am na ci loo xam ne barki Cheikh Ibra bu ma la ko waxalee fii ci dëkk bii bu ma la ko waxalee fii ci dëkk bii yow waa dëkk bi duñu la bañ de yow yaay rusatee dugg biir Touba. yow sa yaram moo la du may nga dugg biir tubaab maa ngi dégg nag say ñu ànd ak yow di ma mënaase di ma woo ay téléphone di ma menacé waaye won leen dama Daba Macky faalewu ma leen heure bu ma mënee pour wax ak yow dinaa wax ak yow nee nga nag am na benn kàll koy wax naan bu la bàyyi bu la doom tooñee danga koy bàyyi dem tuma bàyyam man nag dama ne gis nga doom yu bàyyi bàyyi sama bàyyi te ay doomam sax duñ la duñ duñ la tontu. man mii nga xam ne maay sëtu baay man maay defanteeg yow foo ne benn man na ko fukk foo wàqi ma suul man Daba Macky kon baay du sa moroom te du sa màppano du ma sa morom kenn du ko wax des koy jëf te Macky sàll li nga xam ne doo du sa moroom dala kaa won bëccëgu ndara kam kam kam kam kam ñëpp teg ci seen bët kon nag yow waxala dese ak yàq waaye gis nga iñaan dafa retard dafa xaar ba yàlla jóg ba def li muy def ba pare iñaan soog a soog a démarré fekk dogal wees na loolu moo la dal nag yow yow yow yow yow yow moom yow Idrissa loolu moo la dal ci Macky Sall raw na la te dootu la yow moomu nag yaa amul fulla amoo fayda amoo personnalité amoo maanaa moo tax nga ginnaaw ni loolu ñuy toogee dootoo dootoo dabati Macky mukk mukk mukk raw na la fasu course bu doon moom moom yow jiitu nga moom mu ñëw romb lay dem te dootoo ko dabati tëddil nelaw aw xobu garab nga ci biir kàmb ngelaw li la fi gi dugal du la fi génne jërëjëf bye bye jàmm xew